Seex Bamba a am naa doom bi naan Saalihu ay mbiram xojut ci àddina ay jëfam xojut ci bàmmeel xam ngeen ni saali yow man xiyaam lay jëfam di feeñ moo tax liñ ci gisit amoo leen ne ci waxit dana feeñ moom Seex Saalihu moo tax ma naan ko Mbàkke Balla yow mi yàlla may yóbbu noog ni yaa man ta kenn ya Cheikh Saliou yaa man yaa gal yaay xol bo yaa doomi wàlliw Cheikh Saliou ni doomaram yaa gan ca gaay fa jaaraama yaay rek fadilu di rek basiiro fa gaay abiru jaaraama yow mandiru ni doonu xañ Cheikh Saliou digul ma ca tool ya ma wax lay maqaamam te wax lay darajaam Seex Saaliw ngir ay jëfam teel ma wax la ca tool ya ci ay mbiram ak i koomam moom Sëriñ Saaliw boo yore ñaari seex nga dem ba tool ya nga sàkku fay daam danga fa lu mel ni daam nga yor boolem bàkkaaru mu ñëpp naan dootu seet ci dénn bi nga seeti Seex Saaliw ca tool ya moom Saaliw nga duggi liggéey nee na Seex Muudu Moustapha moo ko jaayante mboolem bàkkaar moom mun naan danan jéggale duñ jéggale demal ca tool ya nga liggéey ñaq woowa di siit jëm ca suuf nee na naan nag mbooleem bàkkaar bismillah laa hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim rabbana la ilaha illa la ilaha إلهي قل لنا أبار مكنوة ملة أنه فيه أجر ومن زاره إلى الذين إلى ستار خلق الصدور زيارة الفارق دار الأوزار إلى الذين إلى ستار خلق الصدور فالأسد زيارتي فارق داري أنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المج وسلام الحول وسلام جمع على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دلوتنا تبقى كان سيسايو moo nu xeetali moo nu dimbali saa xol bi dem naaw saa ru gi dem naaw sun sang baak way ñoo ko torox sun sang baak dem ñoo bi des nañu te jaamu yàlla jot naa mboole bi jalo ku ne ñi naan sunu sang ba gaa yaa nga naan sunu waaja mboolem kanu xamoon dem na tey moonu daan jàngal ñu doon i kàngam du dur du xatu saaka nay dana yett dana dóor baay dana yett dana dóor seex sariwut dayaat ta nga doon kàngam mokkal Quraan nga doon i bàngam ta du dóorum seex sariw yaa ma cib sëriñ te keddew yaa gën cib ci saa sëriñ ngir sopp sama sëriñ te bëgg naa sama sëriñ ngir bëgg tam ku na sa sëriñ seet saalihu mun du morom du maas ki yàlla ko jiital ndemba maa ko jiital ndax xubulaam ndax jubulaam kii xubulaam mu jël seetal ba mu seet li far dégg na maan seex mooy fekk ku ni buum mu jël la sopp lay xewal nga ni buum seex Ibra Faal mooy fekk ku naan kamal mu di nu kamal fan ko defari jaal man seex la faal yaay jëf jëfna samaaro nga dina ko def comme ibada ñal seeni rabal yaay gis ku ñëpp naan duma ndax duma nga boole ko Seex Saaliw mu ko def mu doon seeti rabal yaa jëpp képp ku ne la jaanal ma yaa jëpp képp ku ne la xaal ma nga jël ko naa ko defal naa la nga jël ko naa xamal naa la te sopp naa ko defal naa la mboolem kamalu rijaalu yaa san di def yaa san di di nekkee wax jaaraama maam Seex Fara boori jaar ku ne mi naan saab sëriñ te sopp saa jiwrin ngir bëgg naa ko way ak sopp naa ko way danaa la moo daal di dal ñu daal di lay xam loo leen ko ñeem Cheikh Ibra doomaas Cheikh Ibra doom borom doom ak padoo kii fut bulaam doo dit bulaam mooy waxtu wette moo ma talaaj maam Cheikh yaa gën maam Cheikh yaa man maam Cheikh yaa raw ne kenn nga jaaraam mu Cheikh Ibra Faal mu ne ñu naa waaw ak sopp naa waaw ngir bëgg ku naa la waaw ñu sopp jee def Cheikh Ibra yaay kamaal weesu muy ba ngir sopp noo la kamaal temps yee daan séntu tey mbooleem buur yàlla yi yeggoon nga sax di jàllale maam di Ibra Fall ci ballale ci Cheikh Ibra Fall dirul ma jooju la lala di seede ba baat bi wax ci ak bee mu doon ca Bamba moo ta mu fàggu tey doon suñu jëwriñ Cheikh Ibra yaay fekk tey ku ni duun fexe la ki taabeek li ni bun na seetal ba mu seet fa jox saaliw Cheikh Ibra yaay fekk ku ñëpp naan fa ngaya ko soppi ko mu war a doon fa jaaraama Seex Ibra Faal ku ne di wax ak bëgg naan ma ma ku ne di wax te bëgg naan jox ma saamelo Seex Ibra Faal weesu nga kaane doo seen waram doo seen at doo seen mappandoo man se ku di wër ak sopp laal la la wax kooku ñu daa wër ak sopp mboolem ba daanu dimlu maa ci ay mbiram lu mu yem fil ci ay mbiram lu mu yem ñëwal ci moom mbaa sëtam mbaa tey bi mu tàggat la fal njaga yaaram nga dem ci koom mbaa nga seeti kuy naafi mbaa nga dem seeti kuy bàyyi yaa fa gën di baaw Seex Bamba ne am naa doom bi naan Saalihu ay mbiram xëyut ci àddina ay jëfam xëyut ci bàmmel xam ngeen ni Saali yow man xiyaam lay jëfam di feeñ moo tax liñ ci gisit amoo leen ne ci waxit dana feeñ moom Seex Saalihu moo tax ma naan ko Mbàkke Balla yow mi yàlla may yóbbu noog ni yaa man ta kenn yow Cheikh Saliou yaa man Cheikh Saliou yaa gal yaay xol bu yaay doomi wàlliw Cheikh Saliou ni doomu yaa gan ca gaay fa liw jaaraama yaay rek fadilu di rek fa gaay abiru jaaraama yow ni doonu xañ Cheikh Saliou digul ma ca tool ma wax lay maqaamam te wax darajaam Seex Saaliw ngir ay jëfam teel ma wax la ca tool ya ci ay mbiram ak i koomam moom Sëriñ Saaliw boo yore ñaari seex nga dem ba tool ya nga sàkku fay daam danga fa lu mel ni daam nga yor boolem bàkkaaru mu ñëpp naan dootul seet ci dénn di nga seeti Seex Saaliw ca tool moom Saaliw nga duggi liggéey nee na Seex Muudu Moustapha moo ko jaayante mboolem bàkkaar moom mun naan danan jéggale duñ jéggale demal ca tool ya nga liggéey ñaq woowa di jëm ca suuf nee na naan nag mbooleem bàkkaar root jëm ci suuf Cheikh Moudou Moustapha jaante nee na for bàkkaar ya def ko tiyaaba for ko yokk ay tiyaaba jaaraama Seydou Saliou gàcca ngaalaama Seydou Saliou jaajëfati Cheikh Saliou wala xuyudu laa xuyudu nga teban yàlla nu yàlla gërëm seetaani te boole nag Cheikh Mame fi jinaani bismillahi rahmani rahim yassara li mu yassir مختار ولي بلا مسير يسر لي ميسر نسير مختار ولي بلا مسير ولا لي مسوايا مدبرا بلا رسول يدوم دبرا ما توجي مكاريا باكر باب سكري ووليا هنو رديت ونيرات بلا مكايا ولا مرادي لدى الخير جهة السيطانا مطيب المملوتانا قال لغير جهة الأين يسوق لغينا معين هديتي من الإله والنبي كليتي سفر وشفت نبي توفيق عاد خلام إلام قد بها إيمان بيام بدل يوم ربي قيوم عاصري مما خلق وقيب لا دوجل نوي مطيب حني مع المكاري وتابو حني مع المكاري وتابو لا دوجل نوي مطيب حني مع المكاري وتابو زا حني مع المكاري وتابو لا دوجل نوي مطيب Serigne Mor jërëjëf si Mor Fall yàlla saa borom dollee guddal fan yi te dollee wéral cër yi barki si Touba moom mi ngi jógee ba Touba Mbacke waaye yàlla yàlla dooleel ko tawfeex ak kattan yoone saa borom defal ko ci tawfeex barki si Touba Soxna Fall jërëjëf Serigne Mor defee noonu la ñuy programme bi ak temps bu xat insha allahu taala sëriñ Laayit Jaw mooy itam Tuuba kër Babacar bu ko defee mu yegsi si biir barkeelu ci insha allahu taala nu woyal programme bi bisimilah bisimilah rabbi bima yasraul asana qad fajaa bijaahi man lillahi جاء ربي بما يسراه غسان خاف جاء بجاه أهل من لله القلب من دمام بجاه يا كريم لله قام جاء سرين لاين جو ana saabam doon leen guddal fan yi mu doon leen wéral sëriñ barki Sëriñ Tuubaa Seex Faal liggéey bi yàlla nañu tëjee ak gërëmal Sëriñ Tuubaa bu ko defee incha allahu taala mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki soppe sëriñ Sërif Siise ak saabu Tuuba ak sëriñ Bàmba te bàyyi ko fu sori mi ay goxi goxaat ñoom ñooñee daf ci am ñoo xam ne danoo sàkku ci moom donte ñaari minute la wala ñetti minute moom mu yëkkati ko ci ay baytu xasida bégalee ko ay soppeem ndax bis bi bisam la bu ko defee jànkat nga xam ne ñoom bàyyi ko ne sori ngir bis bi boo defee ñoom bu baax a baax moom donte juróom bir minute la ko ay baytu xasida ko ay soppeem waaye euh, daal sant ñi nga xam ne ñooy ay fu nekk ñëw fii ci bis bi fekk la si ko bu ko defee kon dama koy jox micro bi moom Serigne Serif mu bégal ay soppeem incha allahu taala bu ko defee programme bett lool sax lool sax xanaa kay dañu nuyoo nanu nuyoo ci suba ci suba te suñu borom dogal ñu mën koo nuyoowaat ci guddi gi muy asalaamaaleykum nga xam ne waxtu ne nit mën na koo wax kon ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bi jotale julit ak morom ki mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh di nuyoo nuyoo boo xam ne xol bu sedd guy la barke alquran fi mu toll nii su doon su borom la maa dégg àjjana ak safara safara sax turu nit dootu ko xam maanaam suñu borom na àjjana rek am te safara bu mu amati waaye yàlla nag moo ne loo ko ñaan moom mu may la ko ma koy ñaan ci baaxam ak kattanam ak yërmandeem képp koo xam ne romb na baax bii mbaa mu jaar ci dëkk bi mbaa mu dégg bis bi mbaa mu tëdd nelaw te yëgul ko suñu borom fekk ko fa roof ko tawfiix yi biir ak biti bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sama xol dafa sedd ci sedd yu yàgg yàgg barke alxuraan ndax li fi sëñ si di wax ci delloo ñu ci yàlla rek eh, doy na sax mu bàyyi ñu taam ak li suñu bàyyi Moodu Maamul Amar def rawatina sama mbokk yii sëñ Maxari sëñ Làpp Géey sëñ Ilimaan Sow ba ma yoree seetu ndox di jaay ndox ca Touba Yaañ Ka booba neexoon na ci man lool ñoom ñi ñuy ay jàngkat man ma bëgg ko te manuma ci dara ñuy ànd ak man nag xanees ay jàng tey ñu ñëw fekk ñu fii ci ay kilomètres yu bëri ci sama dëkk waaye ma sant yàlla bu baax ci mbokk yi ma suñu borom sedd ma jiiteel ci sëriñ Ampaté Cissé nga xam ne mooy sunu xalifa jiise gi fii ci kër borom dëkk bi mu ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéeral ciram ak eh, booleem lu mu njaboote suñu ampaari moom su ma ko tuddee tudd naa rakkam yépp ak man mii di wax waaye nuyu famille famille bu ne ci dëkk bi yépp di beral nuyoo imam muy suñu bàyyi Omar Cissé di nuyu bu baax sama waajur yi tedd yi ci jiital sama yaay seen abu lu ñaan sama borom guddal fanam téeral ci waaye di nuyu famille bi yëpp xam naa bu demee ba ba ñaan dinaa yàggil loolu ndax waxtu wi déglukat yi bëgg nañu déglu waaye ngeen dégloo tey ngeen dégg barki Sëñ Tuubaa yaa ngi fi ñëw fi ñëw ngir bëgg a déglu tey sa tey sa xol sedd man nag na ngeen maa bàyyi rek ma bañ a yëkkati benn bayit sant waaye di jiital ci sant gi daayira soppee sëriñ si sa ak sa nga xam ne boo leen xoolee xàmmee ne bàyyiwuñ ma benn yoon di nit ñoo xam ne ànd gi ñu ànd bu daf ma yokk jom gën ma bëggloo si ndax ñoo ma gën a doon taalibi fuuf moo tax ma bàyyi sama lépp jublu ci loolu kon su ko defee ñu ngi ci rek ay bayit te sant daayira yi fi ñëw barkeb Cheikh Massamba barkeb Cheikh Massamba barkeb Cheikh Massamba fas yéene liggéeyal moom borom Tuubaa fas yéene liggéeyal moom borom fas yéene liggéeyam borom Tuuba barke Sëñ Tuuba wa sallallahu taala أنا سؤال خيرة مولاي خسرتي خسرتي خسرتي سيدنا الكرام خاتم سيدنا الكرام ولتخوض أبدا خير المرام هديتي مختلة كل مي كان مناسا وأقصى عمري ما توتو نصار الأخ حلمنا إله nuyu Bayraka Amna. di si jiital suñu baay. Kéba Thiam mi toog. ak mbokk yi mu àndal. seen oto baa ngi nii nu gaare. wax dëgg yàlla. di nuyu Touba Bamba Dala. di nuyu Touba Bamba Dala Kontien. di nuyu bu baax jafe-jafe. di nuyu Touba Matar. Fass Matar. di yu baax Touba Dundu ga di si jiital Serigne Mame Balla Mbacke mii toog di ñaan suñu borom guddal fanam ci wér ci leen di nuyu Touba ji ndeysaan samay samay nit ñoo xamee ne kéemaan la te yàgg na maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp mboolem koo xamee ne ñëw nga ci bis bii rawatina waa Samba Noosu maa ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla Touba Pakala ñoom ñëpp ñëpp maa ngi leen di sant bu baax ñu si des moom su ma yeggalee dinaa leen nuyu seen nuyu bopp di du baax Cheikh Mamadou Mansour Ndiaye ibnu Serigne Aliou Ndiaye di ñaan suñu borom bu dal sanam ndax alaaji si ne nii te loolu ko tax a ñëw kon su ko defee na jàllkat yëpp waajal xam ne ñu toog ñu déglu rek lañ bëgg kon su ko defee Serigne Saliou damay delloowaat micro bi waaye di nuyu waa waa Russie fi ñëwoon di nuyu suñ cameraman ah, muy Mouhamadou Sow di sama xarit di nuyu suñ Alioune Fall borom TVS muy télévision bu kaw la xam ne léegi la fi jógee comme moom koy waxee bàyyi Modou Mamadou Amara ñëpp rek ñëpp rek maa ngi di sant di leen gërëm waaye sëñ Maxtaar dara mi mii war ñoo bégal ci waa kër Cheikh Asmani mu nga nee toog bu ñëwee ngeen su ko defee bàyyi seen i mii war noo bëggal moom it waaye nag damaa wax ne daa mel ni tey moom damaa bëgg ku def ba foofu la mën a yem boo ñëwee rek roppi ko waaw kay sëñ Limane sëñ sëñ Lamp micro baa ngi nii te yéen a ko tax a jóg bisimilah. waaye nag li ngeen def nii yëpp rek di nuyu sëriñ bi muy sëriñ Mame Bara nga xam ne moom itam nga di nga nekk wóolare sëriñ bi ñu ngay nuyu bu bari yow itam dina ziar bu baax a baax. كن إلى ينازل كل تلقى bis danañu galante xas doo yóbbu jéem a gàm nga pour yàlla gën ma gëm boppam nga yàq na ko xalima ko bindee fi wax na ko bam ko waxee bindal ma mbiri mu la xam la xam nga def na yàlla subhaana sil jëli yaarin suma muxtaaru fi taari nasrin abiraaw la xaasadiqan fi murata fan wi te doon leen wéral cër barki sëñ Tuubaa Seex Faal waaye li naan ci yoon wi nga xam mooy yoon sëñ Mansour saa borom defal la ci lu kawe sa barki sëñ Tuubaa Seex Faal bëgg nañ lool daa doon lay jàjjuwaat rek ak yokkat pas-pas bi ci li xam ne wax nanu ko ñoo ngi lay ñaanal bu baax fan ak wér ba barki boo ko defee noonu la ñuy wéyalee programme bi rek baas bi nga xam ne moom la baas mu tiim ñu muy dëkk Touba Mouride nekk ci loxoy Serigne Modou Bousso képp ku ko bëgg a luyee man ngaa ak moom incha allahu taala Serigne Modou Bousso Touba Mouride képp koo xam ne rek soxla nga baas Mouride na lool. ba yegg ci lool ku ko soxla rek incha allah mën ngaa dem Touba Mouride ci Serigne Modou Bousso noonu la ñuy wéyalee programme bi incha allahu taala ànd ak Serigne Mokhtar Dramé Serigne Mokhtar Dramé moom teew na fi di jàngkat bu mag bu ñëpp xam di sunu xarit di sunu wëllare di sunu lépp moom si Mokhtar. sëriñ bi noonu la ko waxee sërif bu ko defee moom la ñuy jox micro bi moom itam mu bégal ñu ci kër Seydi Alxaaji Malick radiyallahu taala anhu insha allahu taala sëñ Moxtaar kon bisimilah nga bégal njabootu lislaam bi cent quatre-vingt-dix-neuf yëpp jox naa ko jigéen ñi nag mu des ñaata benn ma xaaj ko juróom-ñaari yoon juróom-benn ma jox ko jigéen ñi mu des benn benn bi góor ñu bokk ak jigéen ji bu mu bëgg sax jigéen di wax ne yàlla na jàmm yokk waaye sëriñ yàlla na leen jàmm sonnal jàmm yàlla na leen sonnal ci barke sama waa ji Seexuna Tijaani di nuyu sang bi bu eh, di ko ziar bu baax eh, ba sanc Euh, ànd ak sëriñ bi muy sëriñ Saint Dara muy sunu sëriñ di sunu lépp waaw muy sunu sëriñ sunu pap di sunu lépp ànd ak moom dem foofu kenn daje nañ fa kilifa gii mu ngi fàttaliwaat lii wallaay sëñ Jim nag maa lay nuyu wax dina ziar dina dokkeel ndeysaan moom moom dama ne jamono ji ñu tool dama ne ñoo bokk ndaay bàyyi mooy sama mag ku baax nga nii wallaay mu ngi noonu surtout ne defal na ko lu ne kon yàlla yàlla def jàmm barke alxuraan ah, ku ñu wax na tax la Seydina Muhammad ndax tante bi am na ko bëgg Seydina Muhammad خف واستمع سكر من أنواره لمهت في الكائنات كالشمس في السماء الترات كبك يا رسول الله مصطفى خفوة سكرم الأنوار مولما في الكائنات كسمت في السماء الطراب وفقها لمن نبي جل خالقه لولاه ما كان أنوار قد فتحت لولاهما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كلما قد افتتحت فرس ولا هجب قد اقتمن lillaahi wala yahida non moo tax ndeysaan xolal bi jeexoon rek te dégg naa waa ji sànq bi wéy naan hamdin wa sukrin malakul bi zara lahori naa doon softin handa sara di kontaan rek nag bu baax a baax a baax a baax waaye ndeysaan kenn du Seydina Mouhamad. sëñ bi Mbacke kenn du yonent ñëpp moom la ñuy soxla ku mu mënta gàddu wax ndax yonent bi lawlaahu maa kaana mulkan laahi muntasiman duniyaa wa uxraa bihi وقد قد افتتحت سيدنا محمد قد كان نور ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إلا وقد رفعت ولا جنان ولا نار جهيم ولا عرس وفرس ولا هجوب قد انتبه كبيرة محمد المصطفى من دينه دينا تتمت غير الديان الجميع عن قال للحسن للحرم أتى من مثله لا يرى لم يأتي في مقمدا مثله ولا يكدي قد جاء والكفر في الأكوان صود ربي والجهل والفسق والعصيان والفتن كما هو الدين أنفديك ولا جانبي فليكن حزنا وارتبا يا زمن تولني ولا تكني لي أخر وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليكن الخطاب حسابا على لي وفي الإجابة والجزر في صلاة الإجابة والآلي بالإجابة والجزر في صلاة الإجابة والتسليم صلاة الإجابة والعلي وقبل مجابة يا رحمن يا رحيم حبيبي ما يسرون حبيبي ما يسرون فانا خرجا بجاي ابن لله خلجا حمدي لرب كريم بلا شريك له وشجري اليوم نورا ساتيا ولا محمد صلوات الله في ابد عليه في قلبي

أمي أمي زيمان قرآن خرا خطمة الأسرى léegi ñëw yaakaar naa waxtu sax ne la wuñu ko waaye ñu ngi ñu ngi diggalu suñu mbokki jàngkat yi nga xam ne jël nañ ci seen waxtu waaye olof yi dañuy wax na njaabu di leen ci waañ ndax bu ngeen gisee njàng mu jafuñu njàngum aw te euh, dañu xam ne euh, dañu ne lu ñëpp bokk loo ci am mu war laa bay ñu ngi tub bu baax di leen ñaanal jàmm ñi nga xam ne ñoo fi jot a jaar te di ko sàkk ci yéen yàlla saa borom mi yor sutura yàlla na ko defal àddina ak àllaaxira musal ñu ci saytaane ak cat ak làmmiñ ak musiba ak balaa euh, ñu ngi siyaare yi sunu kilifa maam Balla Mbàkke ñu koy siyaar bu baax Mbàkke Balla di la ñaanal jàmm yal na ko suñu borom defal di siyaare suñu wayjur bàyyi ko ba taal nga xam ne moom mooy suñu mu xasida di suñu bàyyi di suñu lépp bàyyi boobu ñu ngi lay ñaanal gudd fan yal na la ko suñu boroom defal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yaa bàyyi nga xam ne foo ko gis rek gis fa bàyyi ko di ñaan yal na suñu borom dolli leen fi bàyyi ba ca kanam yàlla defal leen jàmm ci barki yonent bi di gërëm sëñ Ousmane Diouf mi nga xam ne suñu àndandoo la ñuy ànd ak moom ak sëriñ Abdoulaye mii nga xam ne moom daa dem ba ñëpp naan Abdoulaye Murit te loolu ak ndab la di siyaare sëriñ Xaadim Seen mi nga xam ne moom la ñu àndali di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm sëriñ Akasa nag moom ñu koy siyaar bu baax ndax sama digganteeg moom lay des yi na ak amano moom dara doxul ci suñu diggante mu sant Cissé ma sant Cissé muy sama doomi baay di jàmbaar ndax man dafa am bis bu may def ci kaaraan wax dëgg yàlla da koy teewee ba mu mel ne bisam la yàgg nañu lool daanaka ñun kaaraan la ñu nekk di yëngu foofu waaye ñun suñu cosaan jaamal la man mii di wax ak yéen nga xam ne sëñ Tuubaa moo yéeme man sëtu borom jaamal laa man jaamal fa laa soqee baax am naa ay mbokk yoo xam ne ñu ngi ci dimb gu mag bi xam nañ fa ma dëkk bu baax am na kaset boo xam ne génnewoon nañ ko jamono jii rek ku dugg ci youtube bi di nga ko gis ñu wéyoon ci wala xolu borom jaamal ndax ku ko ku ko ku dugg ci youtube bi rek boo bindee Serigne Abdoulaye si sa xasida di nga seetaan kaset boobu def nañ ko clip képp koo xam ne soxla nga sunu njàng rek boo bindee Serigne Abdoulaye si sa xasida di mun di ñu topp Oh, ñu ngi ñaanal di sunu mbokk mi nga xam ne moo jugee ba kaaram di mu Momadou ak équipe am yëpp cheikh bi ñu ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla defal ak mboolem jullit di ñaanal it rajo yi yàlla na ko yàlla defal jàmm waa dëkk bi ñu ngi fasante yéen colère bu baax di ñaan yàlla na mu jàmm képp ku fi toog rek yàlla yàlla jàmmal la ci barakatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahiim allahu aliim samadu wa baaxi subhaanahu wa subka naasi wa waaxi wa nahnu wa fika naafi man yihi min kulli shay'in wa samsanihi mustamsikina bil xiyaasi ahmada xayrul anami muntahan murtada man xaalaha fi samani wa baaxi aman dahi min albalaa'i barka ba tuba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bal nañu àq yéen ñëpp bal nañ leen ci barke yéen bi salaa sallam Seex Bambare am naa doon di naan saalixo ay mbiram xëy ci àddina ay jëfam xajul ci bàmmeel xam ngeen ni saali yawmal xiyaam lay jëfam di feeñ moo tax liñ ci gis it ak moo leen liñ ci wax it dana feeñ moom Cheikh Saliou moo tax ma naan ko Mbàkke